salaamaaleykum daleen ak jàmm ci Xarala académie mbokk si aan Xarala académie tey suñu tutoriel dañoo ñëwaat ci lu am solo mooy administration jàngoo par exemple dañoo bëgg erreur bi ñu gis sànq fii dañ bëgg résoudre maanaam ñëw si administration bi léegi pour ñu def loolu benn commande ngay tàppe rek python manage.py migrate wala migrate commande bi ngay tàppe bu nekkee tamit sama terminal bi leerul wala kii ngeen wax ma ko bu ko dee ma mën ko yokk tuuti bon xam yokk tuuti sama kii bi xool. pour ngeen que comprendre gis commande bon dama je parce que <laughs> man vois pas grand chose bon euh, zoom avant 200 de xam je voilà 200 même li de ok donc dama ok ok mon plutôt marge point migrate une fois nga étape commande euh, suis ok yokk naa euh, mais fenêtre aussi voilà mon équilibre ni python point migrate ok les bu nekkee tàpp taper da ngay voilà gis nga information voilà comme ni ngeen fini première table je content type dinañ si of off euh, euh, authentification utilisateur léegi bu ñu fi fii bo boo ni bo boo ni nii nga def continuer voilà d'ailleurs wax please enter the correct username and password parce que fini pour utilisateur super utilisateur yi pas a dugg voilà madame super utilisateur ok les pour ñu créer bien compte super utilisateur ñu def ni la def manam dañuy taper create super user comme ni Superman lañ bëgg créer quoi boo xamante lu ko neex mu def si application bi ok c'est bon euh, what the heck is it ah, ah, ah, ok voilà bon erreur bi tamit souvent day ñëw si Windows léegi moo leen luñ koy régler parce que keroog gisoon naa ko fan sax create super user voilà you can run in your project one manually bon lii keroog utilisateur bi. Euh, amoon naa erreur bi ci si Windows voilà léegi naka laa mën a def ba résoudre ko dama leen wan benn pour pro prochainement bu ngeen amee problème boobu ngeen ma xam nu ngeen def da ngay dem Google nga tàppe erreur bi voilà première booy boo bëggee résoudre benn problème ni ngay def voilà dem Google tàppe ko premier lien mooy stack overflow nga cliqué gis nga waa loolu tàppe mu am erreur bi léegi ñu xool xam yokk navigateur tout ngeen gis voilà gis nga mu ngi léegi ñu wàcc tuuti xool laaj ko laaj ko la la mooy la mooy solution bi léegi voilà kii mu ni solution moo nekk nii muy léegi da ngay def win win pitaay comme nii win lan win <laughs> pty bon c'est compliqué à lire mais loolu lañu ñu essayé ñu tàppe ko xool léegi ñu jiital li waa wax ba xam ñu tàppe fii parce que keroog am ngeen formation bu doon def en Python étudiant bi même problème la amoon mais bon dama dem si net bi parce que man mosuma presque utiliser Windows pour développement quoi Linux la faral di utiliser voilà léegi ñu tàppee lii xool voilà gis nga baax na léegi quoi léegi ñu tuddee ko admin am yow superman bi admin lañ ko bëgg a bon email c'est pas obligatoire dama koy bàyyi noonu mu vide ma def benn mot de passe bu simple admin bon mot de passe bu simple la simple boo xamante ni moom xale sax mën na deviner ok c'est bon léegi dugal na ko paré ñu dugal sama mot de passe xol nga def ni ñu xol voilà oh what the heck is it c'est quoi le problème voilà duguna nek administration Django bi nek li nag motax ñu utiliser framework parce que da yow lépp créé woko Django moo la créé instant mën nga ajouter ay utilisateur mën nga modifier mën nga supprimer léegi ma wan la user if nek gis nga ma nek ni bu ma neexee changer sama tour mën changer sama centre voilà léegi comprendre ngeen nu utiliser côté admin bi léegi kii bi ma tàppee mooy win kii bi li pour Windows kese mooy win p t y pour Windows kese la bu nekkee Linux ngay utiliser wala mag jaru nga koy tàppee mën nga tàppee directement manage point py create super user merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel